ma lay wax ne yow président Macky ku tooñ sa jëmm ji sañ nga koo baal waaye ku tooñ réew mi sañuloo koo baal te dafa am ku tooñ réew mi man nag am naa dubul kasket mënoon na fay taxawal sama parti moo tax sax bi nga oowee parti opposition yi oowoo ma jaaxal waaw ndax da ngeen dugaloon bennoo mosu leen maa oo ah, président nag danaa nekk kenn ki nga xam ne moo la yow lay accuser ak sa tolluwaay yépp yow la ñuy ci li xew ndax yaa fi indi suukar subari mu nekk ci ay saako ba janax yi bënn ko yow la yàlla dafa bind àjjana seytaane feeñ yonent bi oote aboo jaal feeñ màkki liggéey lakkkat yi feeñ président bàyyi nga ñu ak ay saay-saay ñu ne ñoom saaga saaga saaga saaga lañ xam mais li ma bëgg nit yi xam ne ñooñu di wax Macky Sall taxu leen a jóg diine ji yàq ko moo leen tax a jóg ndax ñooñu daaw jéeg keroog bañ taxawee mitig biñ bëgg a def Kër Massar man mii lañ saaga benn kilifa benn nit nangoo leen a recevoir def violation de domicile te kër ga maa ko moom titre foncier baa ngi ni violation de domicile la doo naa leen bëgg a porter sax waaw am ñu ma ne ah loolu boo ko defee est-ce que Macky dina ci d'accord wala du la ci yet bi ma ne ah loo am xel yaa daal ñu def ci ndànk waaye président lii sëriñ Mansour Sy Djamil wax d'accord naa ci gëmm dóor ba pare xool dóor aussi gëmmal dóor xoolal dóor ndax yàlla yow la dénk réew mi nga def fi lu kenn mës a def waxuma la ñetti président yi la jiitu waaye gouverneur généraux yi fi ne gouverneur yi mos a fii ci pale bi sax li nga fi liggéey ñoom ñëpp boo leen dajalee kenn liggéeyu ko fi man damay wër ci réew mi dem naa poñ boo duggu fekk fa ñu ngay goudronné ñu ngay tabax école ñu ngay tabax dispensaire ñu ngay tabax université ñu ngay tabax lycée lépp partout ba la Senghor waxoon ne Dakar sera comme Paris yow waxoo ko danga koo def président vraiment lakk oto yi ak lakk kër yi ak tax xale yi jànguñu gis nga tey sama doom boo xam ne ñaari at rek la am dañ ko yóbbu xëy yóbbu ko ca crèche ba ñu toog dix heures message wàcc suñ téléphone yi maag yaayam ñu ne ah kaay lañ jël si xale yi dañuy bëgg a lakk si eh, eh, crèche bi ñu nekk di daw ñu ñëw yow xam nga sama kër ñu jaar université ñu dégg teel teel ja ñuy wëri di wëri di wëri ba mën a jot xale bi indi ko sëriñ bi yow yaay assurance su xale yi yaay suñ assurance te lii dal réew mi mën nga koo faj faj ko faj ko tëbbul yërëm lislaam nee na walaa tusaayir naa si bul joxe sa sa sa sa sa sa lii la lii kaabaab waaw bul joxe sa kaabaab ndax ku joxe sa kaabaab am pesam kaabaab déedéet président ñun fi mu ne li bëgg bëri na waaye jàmm ji moo jiitu su fekkee ne kii dem crèche mënta jànge wala bu jàngee dañu daw jëli ko te buñ koy jëli ci ay safara lañ koy jaaree président dakkalal loolu président kaña Nip. nit gis nga man mii xam nga ne yoroon armée xam nga colonel la léegi ma seen rek ma ne règlement militaire yi ci àddina wax nañ ne nit Vous déclarer insurrection contre l'autorité de l'État de faire une cible légale pour l'armée mën nañ ko dóor canon mën nañ ko dóor char de combat mën nañ ko bombarder ak avion loolu règlement militaire la déedéet parce que yëf yi bon opposition fi lañ ko fekk Sénégal ñaa li am ci ay parti moo ëpp li mu am ci ay ay at ci ay bés ci at mi s'il y a trois cent soixante cinq jours y a plus de trois cent soixante cinq partis kooku ça ne pose aucun problème mais ki nga xam ne dafa jóg pour siol diine ji di di di jaar ci diggu Tuubaa di leen mbëllee waaw jërëjëf jëf mbëllee la ñun dégg nañu loolu xam nañu loolu li mu signifié kon nag sëriñ bi ñoom diine ji lañ ciblé su fekkee na nag yow dafa am lu téye say loxo bàyyi bàyyi ñoog ñoom ñu réglé ko bàyyi ñoog ñoom nga ne état bi yoonam nekku ci attaqué nañu religion bi Nous savons ce parce que nous, avons rapport de force Nous parti contester l'État et l'institution Qui m'a vous êtes le père de la nation les enfants de la nation réclament la paix seulement la paix il y a une vieille qui vendait du Tchaf en face de l'université ils sont venus brûler euh, des choses qu'elle avait faites comme ça avec des cartons elle a pleuré monsieur le président Lolo, dafa faut président xam nañ vous sa détermination ñun xam nañ né Je dogata Macky dogata, dogata waye nak itam Ah, boo gaawee ñu jël réew moo xam ne dangaa wax ne yow yaay léegi nit ñi yow yaay juge juge bi yaay critiquer général bi te yow fuñ nee teel nga daw léegi nag li ma lay waxal président te fi laay tëjee am na mbër boo xam ne dafa dafa dëkk réew mi waaye barki réew mi am na quatre appi quatre appi na yaay arbitre bi waxal daanu na walla daanuwul